alaikum mbokki diaspora Tay nag ñu ñëw seeti si euh, madame Sow Maty Senghor Bey nek euh, coordonnatrice réseau des enseignants républicains bu Thiès Tay nag ñu seet si woon ko bëggoon rek euh, waxtana moom soxna ci ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw ma ngi leen di nuyu wa point com di tek nuyo bi ci sen loxo PDG mon frère Jamil Thiam di rafetlu sen téway fi tay Thiès mu nek mbekté ci man nek mbekté ci képp ko xamné membre réseau des enseignants enseignants à Père de Thiès donc dal leen ak Thiès euh, particulièrement au quartier Bagdad jërëjëf bëggoon nañu rek ci door nga wax réseau des enseignants lan mooy taxawaayam ci réew waaw réseau des enseignants APR euh, structure parti bi la boo président de la république de ko bien avant d'accéder au pouvoir comme nous avons une structure cadre ni mu structure euh, jeune cogère, ak ni mu tegee structure femme donc réseau des enseignants de la mën naa ne taxawaayam mooy ñu jàppale président de la république jàppale ko d'abord ci côté éducation parce que bu ñu àndeek moom ba pare fekk ne ñun ñoo ci secteur bi dina tax kat ñu mën a jooyante bu ñu gisee problème balaa problème baa dem ci kaw ñu régler ko ci suñu biir donc dañu war a intermédiaire entre le président et les enseignants su le réseau aussi comme APR mi ngi ci biir rek politique a ngi ci biir aussi ñu jàppale ko politiquement ok en parlant de politiquement jàppale politiquement en tant que réseau des enseignants tey tey bu ngeen si lan ngeen di président ci ci ci donc politiquement donc euh, politiquement ñoo ngi le président de la république parce qu'au niveau de Thiès ñun nous euh, indi un slogan boo xam dañ ko un enseignant un comité dans le cadre de la massification du parti parce que bi nous commencé à faire des rek nous avons enseignants yi di wax day syndicat donc pour faire la différence kuy politique da ngay am base donc enseignant bu nekk na base de telle sorte que fii à Thiès quartier boo

réseau bi fi à Thiès te bëggoon en tant que femme bëggoon nga wax ñu tout rek sa jaaja ak naka nga def rek ba ba ba regroupé njool lépp ba nek tay sen coordinatrice waaw merci beaucoup ci question bi parce que réseau des enseignants à Père ngi ci dugg en 2012 Euh, te je tiens à préciser que ni avant 2012 aussi defuma woon politique mosuma def politique mais bi président dikkee ma xool son programme le PSE ma xamné ki il est ambitieux amna vision parce que programme la bo xamné nekul pour tay mais pour ëllëg la te ku wax développement durable wax ëllëg mané li kat pourquoi pas ñun ñu dem jappalé président te cadre naturel biñ ko mën jappalé réseau des enseignants ci lañ ñëw adhéré bi ñu dikké nak amna kuñ fekkon mu nekk coordonnateur ñu and ak mom di liggéey muy coordonné man ma nekk responsable femme bi mais nak responsable femme bobu aussi li tax mu andi ma tay ba ma nekk coordonnatrice moy ba ma ko nekké aussi dama ci am taxaway parce que ma ngi koy wax l'autre jour en un laps de temps moins d'un mois bi ma ñëwé adhéré ci réseau nombre de membres yi ma fa fekkon yokku ba multiplier wu na par 10 ci lu matul wér donc on a gourni, on a jigéen les convaincre on a ànd président ñoom aussi ñëw wuyu si ma une ñu am relation yu baax ak ki ñu àndaloon di liggéey mu nekk coordinateur, ma responsable femme mais politique aussi ku nekk ak gis-gis à un certain moment moom dafa créer mouvement nous avons toujours mouvement enseignant le président Nous, on a préféré rester dans le réseau Nous rester dans le réseau nous ci générale et j'ai été porté à la tête du réseau donc ce ko nous dit, nous aussi ñi ngi ties di doxal Nous, bokk fu ñuy parce que nous, sommes président jërëjëf am na solo nga nekk tamit enseignant comme yaay nekk ci réseau bi kon bëgg nañ dugg tout rek ci njàng mi ak njàngale mi ñi bëggoon xam tey naka nga gisee euh, résultat wu ren yi euh, euh, par rapport ak daaw tey bu fekkoonte ne mën nga ñu defal bilan bi ci ñaar at yi tey lan nga ñu wax rek ci tey ak résultat yi nga xam ne jot na wadd ci concours BFEM beeg ak ak baccalauréat waaw donc foofu damay saluer résultat yi ñu am ren parce que am na ñu ma dégg ñu def ay sorties naan résultat yi dafa wàcc par rapport à daaw mais man yaakaar naa ne bu ñuy comparer waruñu comparer résultat ren ak daaw résultat ren ak 2019 la ñu war comparer parce que daaw y avait une anormalité nekkul woon situation normale parce que dañu jàng ba février daaw Covid bi ñëw bi Covid bi ñëwee ñu toog quelques mois ñu reprendre mais bi ñuy reprendre euh, si vous vous souvenez bien euh, élèves ñi def examen rek reprendre alors que l'équipe pédagogique bi yëpp dañoo dem gunge ñooñu te ñooñu aussi biñ togué ci seen kër yi dañoo amone appui parce que nous ngi leen doon defal euh, enseignement en ligne ñepp mobiliser wu donc daw c'était une anormalité heureusement aussi élèves yi profité nañ parce que anormalité à na ga mais toute la communauté éducative était debout comme un seul homme jappalé xalé yoyu da nga doon gis ci classe bo xamné un enseignant day gérer six élèves de leen donc lolo résultat ya ñi am mënta bok ak boo 80 élèves de classe lolo andi daw ñu am résultat yo xamné c'est un peu élevé par rapport li ak li Sénégal daan am ren nak buñ ko comparer ak 2019 on voit que résultat ren yi ñoo gën yu 2019 yi bien que ren c'est une année assez particulière parce que ci lañ def rattrapage yu année daw bi en deux mois ba pare enchaîné mais malgré ça

parce que man yaakaar naa ne jàng bu amul sérieux rek jàng amu fa donc élève dafa war a dem ak méritam euh, compétir ak moroomam yi man je déteste la tricherie mais gis naa ne loolu aussi c'est un processus euh, parce que xale su fekkee mi ngi ci école di jàng yow mi koy jàngal da nga war a am rigueur di ko suivre buy def ay exercice am mais su fekkee aussi enseignant bi yaa ngi yore élève joxe devoir amoo sérieux dans la amoo sérieux qui ni nga koy suivre xale commencé à tricher à l'élémentaire examen jot entrée en sixième de tricher am bu demee aussi au CM mu quatre fois la même chose ñu jox ko devoir amul suivi bi ci war mu à tricher, pour tricher, tricherie bu BFEM tricher donc tricherie c'est processus la bo xamné ci classe yi la commencé foofu moom sama collègue enseignant yi laay interpellé nañ gëna vigilant ci surveiller xalé yi kit à ce que bo yoré une classe pléthorique nga wara def devoir éclater classe bi en deux sacrifier wul jëlal benen heure bo xamné ne bokkul ak sa heure normale sax nga ñëw def devoir mais devoir dafa am mais xalé yi légui lu ñuy gis benno bokku devoir parce que man je ne peux pas comprendre euh, trois élèves toog ci table banc di def devoir loolu mënul nekk ku nekk di yër sa copie morom donc ñu ngi semer les germes de la tricherie te xale nag loo namp rek ngay tari soo nampee tricherie élémentaire namp ko sem, namp ko lycée foo dem da ngay tricher donc ñun enseignants yi am nañ ci part de responsabilité nañu gën a vigilant ak xale yi man vaut mieux nga def un devoir boo xam ne c'est bien surveillé plutôt que ngay def deux devoirs yo xamné ne na la né xalé yu not yi ñu am mérité wuñ ko su ko defee nag loolu moy indi buñ démé ba examen jot quelle que soit stratégie buñ ñu mën utiliser dinañ tricherie parce que tricherie lañ jang mom lañ namp mom la ñuy tari ma ñew nak ci kaaw tricherie yu bees yi ñu gis yi ñi déguisé wu jigen dem di def examen loolu mom vraiment dafa ëpp dafa ëpp te lima gën metti nak moy cas bi ñu observé récemment avec euh, euh, ki dëkk Diourbel euh, non seulement peine biñ ko tek dafa ndaw parce que dama gis ne nit su defee erreur dañ ko wara corriger ba société bi xam ne corriger nañ ko ñu ragal bu ëllëgé su ko keneen naree def xalaat ne diw bam ko defee li moko ci fekkoon gis na ne sax ga mom kawam euh, presque société bee ko corriger parce que période bi mu nekké ci biir xeyna famille am ak mom dund nañ loo xam euh, metti na mais ba mu génné dama gis mu nekk ben héros l'autre jour sax m'a dit que bourse ainsi de suite parce que aussi c'est une façon de promouvoir la tricherie parce que nous, tricher na avons ci bourse stratégie pour bénéficier de la même faveur donc nous sommes strict parce que les enfants moins li société de plus précieux

te aussi ku ñu waxoon ne jox nañ la jox nañ ñu telle localité yéen lañ fa euh, tabb maire mën nañ koo doxal mais comme dañoo bokk ci parti par discipline de parti dañuy bàyyi suñu parti ñoom ñoo ñu tànn ku ñu tànn dinañ ànd ak yow suñu tànnee aussi dinañ doxal donc foofu daal dañuy doxal discipline de parti j'aurais bien aimé que nag au niveau de Thiès ñu am une femme à la tête d'une mairie parce que euh, bu ñuy wax ne euh, bu ñuy wax comment on l'appelle hein? parité buñuy wax parité parité bi aussi warul nek rek ñu naan conseiller bu goor conseiller bu jigen parité bi na dem ci buñ amé amee quatre collectivités nañ def ñaar yi jigen nañ def ñaar ñi goor sinon même buñ mënul lool à la limite nañ jël ben collectivité sax ñu tek fa jigen man su boba ci lay gëna sentir la parité parce que kat goor baxna jigen baxna te légui kat la donne moy jigen ñi sax nak est-ce que ñoo compétent donc euh, j'aurais bien aimé que à Thiès mu am collectivité boo xam ne dañ fay teg jigéen mais ñun suñu cas personnel au niveau du réseau par discipline de parti nous nous rangeons à la décision du parti. am na solo bu baax ba bëggoon nañu it par rapport au troisième mandat du président de la république. par rapport au troisième mandat du président de la république nous na ñun liñ ciy wax euh, du bari mais euh, liñ ci jàng ci droit rek la wax parce que gis naa Barthélémy Diaz Sonko ñu le président la 3 troisième mandat am ci droit fa ñu sukkandiku ba wax fa rek foofu laay sukkandiku man ba wax ne président su 3 troisième mandat suñu droit may na ko ko parce que bien avant euh, référendum projet de loi bi mu pour réformer la constitution bi ko envoyé constitu conseil constitutionnel dafa bëggoon mom, mandat wam boobu kon 7 ans ñu wàññi def ko cinq ans comme ça mu bokk ci mais bi mu le projet de loi ba conseil constitutionnel dañ ko xamal ci sen avis mi ngi nek avis numéro 1 C 2016 bu conseil constitutionnel dañ ko ku ko yër ko gis dañ ko ci xamal que ni sa mandat bi mënul bokku ci yi ñi parce que euh, euh, une loi ne peut pas rétroagir donc constitution bi mënul jël en charge ce mandat bi parce que ce mandat bi moo koy jiitu donc je crois que loolu leer donc la constitution may na ko mu présenté maintenant que dina présenté wu wala du présenté wu loolu moom dañ ko koy bàyyee moom président de la république mon la ñuy peut-être mon bu ko neexee mu présenté ou su ko est mu bañ a présenté mais Boudé dee yon yoon ko jërëjëf xanaa ñu bàyyi rek nga wax ñu lan ngay tàggoo ak lan ngay wax sa mbokku enseignants yi nga xam ne ñoo nekk fi cees ak ñi nga xam ne ñoo lay déglu à travers euh, seenu chaîne waa bitim réew TV. waaw wax naa ko sànq année bi ci lañ jàngale année bu daw ak bu ren ñu boole ñaari année yépp jàngale mu metti trop parce que am na fête yoo xam ne dañ ci daan bénéficier mais cette année amuñu fête presque mais benn enseignant grèvul benn enseignant xultuwuñ ko donc am nañ mérite côté boobu peut-être nag di leen gën a soññaat rek ci xale yi ñu dénk xale yi ñu dénk société bi daf ñu jox ce que la de plus précieux mooy ses enfants donc au-delà de jàngale nañu xalaat ne aussi xale yi dañ leen a war a jàngal mais dañ leen a war a yar côté bobu dal maa ngi ci soññ enseignant yi ñu gën gor góorgóorlu bu dé côté politique bi aussi Mangi soñu suñu mbokk yi nekk Thiès surtout ñima bokal mouvance parce que Thiès chaque jour ben candidature ñu déclaré ko pour élection locale lolu peut-être ñi déclaré candidature am nañ ci droit parce que ku ci nek tu es méritant te xeyna buñ la joxone di nga doxal mais lumay bañ rek ñu camper ci sen position ba au finish buñu ñu kenn muy metti ñeneen ñi ba tax ñuy beru ji parce que kat élection yi ñu jëm dañoo war a àndandoo songu ko daan ko jiita doxal suñu collectivité locale mais suñu tasaaroo rek mën nañoo am ay surprise moo tax maa ngi lancé appel ñi ma bokkal mouvance ñëpp ku nekk am nga droit bëgg mais ñu bëgg ñëpp mënuñ leen tànn te ku tànn di nga am ñu ñu bàyyi donc ku ñu bàyyi rek nga xam ne du sa chance te heure bi euh, bu ñu demee si commune yi nekkul ne benn nit mooy jiite c'est une équipe bu ki dirige donc boo nekkul maire it mën ngaa nekk secrétaire mën ngaa nekk adjoint au maire mën ngaa bokk ci ñiy diriger ci dëkk bi te doo nekk maire loolu ñu bàyyi bàyyi ko bu baax xel baña def division comme niñ ko defee won 2014 ndax 2014 kat division moñu ñu taxoon a élection yi té nit yaakar naané bo défé dara jigula bul ko défat donc bëgg bëgg mom ñëpp a am droit bëgg mais bu tan amé aussi nañ par discipline de parti par discipline de mouvance nañu rangé wu ci ñi nga xamné ño nekk ci kaw ñu tuddé leen suñuy idole tuddé leen suñuy responsable la ñoo ñu décider nañ ci ant jërëjëf euh, ñu lay change de gërëm